waaw euh, fi ñu ñëw euh, tey li ñu fi tax dafa bokk ci li ñu naan marathon budgétaire maanaam euh, budget senegal koppar yi nga xam ne suñu jàppee recette dépense mooy li nga xam ne koppar fan lañ koy jëlee ak fan la jëm xaalis bi nga xam ne boo ko xaymaa lépp mooy budget Sénégal fi muy jóge ak fan la jëm loolu moom moo ñu fi tax a toog tey euh, bu ñu ñëwee toog nag ministre de l'économie ak ministre de des finances ku ci nekk dafa am pàcc boo xam ne am na liggéey bu mu ci def ministre de l'économie moom dafay def li ñu naan cadrage macroéconomique dafay xool ndax ci biir économie bi secteur d'activité yi maanaam ci mbay maanaam ci ci jàng ak jàngale ci euh, ci xarala ak bu ci nekk lan lañ fa war a dolli dugal ko ci investissement pour euh, politique publique yi daw benn ministre des finance tamit xayma mbir bi calculer ne budget bi day six mille quatre cent milliards lay nekk maanaam six mille quatre cent milliards yoo xam ne dafay dellu ci doomu Sénégal naka la ciy delloo nag loolu mooy wax ci dafa am lenn lu njëkk ci sama intervention sax lu ma doon wax mooy mbirum leb bi Sénégal naka lay lebe fan lay lebe ak euh, fan la fan la toll dayoob leb bi après ñu rappelé ñu ne 2000 ba 2006 dettu Sénégal dafa bëri woon bu ñu xaymaa li ñu naan euh, koom-koomu Sénégal bu ñu ci jëlee ni koom-koomu Sénégal téeméer la juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yëpp loo xam ne dañ ko leboon ñu toog ba 2006 période boobu président Abdoulaye Wade moom moo moo nekkoon njiitu réew mi. mu am li ñu naan initiative PPTE ñu jël réew yi gën a ndóol ñu dindi lu bëri ci seen li nga xam ne dañ ko leboon mu mat presque ay junney milliards mbir mi wàccaat waaye dañu gis ne bi ñu ko xayma 2006 ba 2012 at bu nekk boo jëlee pàcc téeméer ci suñu ci suñu koom-koom ñaar fukk dañ koy labaat at bu nekk li may wax noonu 2006 ba 2012 mooy résim bi passé régime mu président lay Wade régime bi nag ñu gis également résultat yi ñu won 2012 ba léegi mbir mi wàcc bu baax maanaam li ñuy leb dafa wàññeeku benn bele ñaar fukk ak benn la woon ci téeméer bii fukk ak ñeent ci téeméer benn ñaareel bi bu ñu daan leb bu njëkk. dañu leb ci diir bu gàtt ba pare fay intérêt yu bëri yu takku léegi dañu leb ci diir bu gudd mooy dette concessionnelle lii diir bu gudd te intérêt yi du bëri te ci leb bi dañ koy dañ dañu leb pour financer développement Sénégal maanaam pour tali maanaam pour jàng ak jàngale maanaam pour faj et cetera bu ñu gisee loolu nag ñu ne. sénégalais yi tey toog nañ lu yàgg ñuy tabax ay tali ñuy taal ay làmp ñuy euh, defar ay TER ak ay berte sénégalais yi ne léegi nag xaalis bi nu munti toll nañ ko dugal ci social bi ñu xaymaa budget bi ñu gis ne téem ci six mille quatre cent milliards yooyu bu ñu ci jëlee téeméer mën nañ ne genn wàll gi yëpp ci social lañ ko dugal ñu ne ñun kon loolu d'accord nañ ko ci budget parce que loolu la doomu Sénégal soxla woon fan lay dugg nag téeméeri milliards dinañ ko dugal ci njëg li maanaam téeméeri milliards dañ koy def ay subvention yoo xam ne bu dee ceeb la bu dee bu dee diwlin la bu dee meew la bu dee lépp loo xam ne tey panier de la ménagère day wàññeeku ñu ne ah loolu d'accord nañ ci bu dee carburant essence li nga xam ne tey surtout gasoil bi nga xam ne gasoil bi bu yokkoo rek dem beeg dikk bi dafay naax saay njëg li ñu eh, njëgu njëgu transport bi dafay yokk ñu gis na que foofu tamit 450 milliards dugal nañ ko ci ñuy xayma daal bu ci nekk bourse de sécurité familiale ak bu ci nekk daal ñu koy muy yokk bu baax donc ci loolu ñu ne ah comme demee na noonu budget bi ñun d'accord nañ ci li nga xam ne loolu la ñu proposé mais ñu wax ne social bi nañ ko gën a yokk ñu wax ne beneen at yi di ñëw tamit ñu gën a dugal ci social parce que FMI par exemple dafa naan non social bi bu leen ci dem ak yooyu alors que ñun dañu bëgg social bi ñu gën ci dugal euh, gouvernement bi gën ci dugal loxoom donc loolu lañ doon def comme comme plaidoyer euh, ne nag ñun suñu botee budget bi mooy li ñu naan habilitation mooy d'accord nañ gouvernement bi jëbbal koppar yooyu koom-koom boobu doomu Sénégal ñi ngi ca Galguel Soule ñii ca Kédougou ñii ci Kaolack ñii ci euh, Ziguinchor ñii ci Ndakaaru ñëpp ñu jëbbal leen loolu waaye bu ñu paree nag dañuy dañu am li ñu naan loi de règlement maanaam ñu ñëw dellu si fii jëwriñ yi bu ne ku si nekk dellu si ñu xayma mbir mi xool ndax fi ñu leen waxoon foofu lañ ko dugal foofu lañ ko dugal.